waxtu yu ñu jàpp fukki fan ak benn ci weeru décembre Vox Populi di xam ne ne nag ginnaaw Ziguinchor Ousmane Sonko nag dina xam ëllëgam fukki fan ak ñaar lay doon nag yemook bis bi nga xam ne dinañu xam ndax dañuy woy nag di ko dàq ci liste électorale yi wala sax nag dañ ko ciy delloowaat loolee nag ci ab audience spéciale lañ koy amalee ca palais de justice bu Lat Dior bu ñu sukkandikoo ci yëglekaay bi des ba tey ci mbirum Ousmane Sonko ak l'observateur mi xëy dellu siwaat ci koppar yi nga xam ne rek dañu koy financer lii di parti politique yi nag ci xëtam bu njëkk muy xam ne ni nag koppar yi nga xam ne moom la député bii di Matar Diop xamle woon ne dañu koy jébbal Ousmane Sonko muy bàyyeekoo ca Qatar amut lenn loo xamante nii rek ma nga cay dellu ginnaaw ca la mu waxoon ca pencu ndaw réew ma la mu bëgg rek mooy nag kilifa yu Sénégal def ci taxaw seetlu te it nag procureur daal di cay ubbi ab ndax nag li muy wax xam na ko te it ay preuve yu la ci am coow li nag ma ngay bëgg ëpp loxo ci yëglekaay bii di Le Quotidien jëm ci financement yi nga xam ne rek ay lobby ñu ngi koy jébbal kii di Ousmane Sonko mu jur nag ay gis-gis yu wute ci biir société civile bi liir leen yëglekaay bi yéenekaay bi di bés bi la jour a fi mu toll nii nag société civile bi ñoom ñëpp jug nañu taxaw nag sàkk ñu ubbi ci ko ci suñu yi ba noppi kàddu yooyee nag El Hadj ko xamle ci bi di bés bi la jour yéenekaay bi defub taxaw seetlu ci tuuma yi nga xam ne rek gàlloon nañu ko ci ndodduk Macky Sall ak a Seck ci atum mu soxal nag juróom ñaari milliards yu Taïwan ak protocol bu rëbës kàddu yi nga xam ne rek moom Matar Diop yëkkati na ko ma ngay dëggal nag ni du ca dellu ginnaaw te it du ca wàññi lu toll ne tarfatal ay ni ñu bàyyi nag di jaxase xelu askan wi mu fekk jamono joojee nag Le Soleil yëglekaay dikk ci njiitu réew mi ak lu jëm ci wàllum industrialisation bu Sénégal yéenekaay bi nag di xam ne ni junni ak ñetti téeméer ak fanweer ak ñeent ci wàllu xëy nag taxawal nañu ko ci phase bu njëkk bi njiitu réew mi di xam ne ci biir yëglekaay bi ne lëkkaloo di coopération bi am ci diggante Sénégal ak Chine nag wane na ni nag bori moom du piège te it nag du yéen wu di suqali nag wàllum industrie bu Sénégal doon na loo xam ne nag ONIDI daat na koy rafetlu xumbute yi nag jëm ci wàllu woowee amal nañu ko nag ca jam ñaajoo ginnaaw bi ñu jëlee ay boulevard ak i aveni yoo xam ne rek déppee nañu ko ay njiitu réew yu nekkoon fii ci réewu Sénégal le témoin nag dellu siwaat ca la xewoon démb ca jam ñaajo ñaajoo yéenekaay bi ne ay musée yu ñu dippee nag kii di Léopold Sédar Senghor Abdou Diouf maître Abdoulaye Wade Macky Sall nag loolee def yéenekaay bi ne jam ñaajo nag may na njiitu réew ngir mu yeggale ay yéeneem ak i mébétam ci ñi nga xam ne rek ñoo njiitu réew yu ko fi jiitu woon fii ci réew Sénégal mu fekk enquête yéenekaay nag xëy daal di fësal ne Macky Sall ma ngay blende gouvernement bu Sénégal ginnaaw ay nomination yu mu amal nag ci ay hauts fonctionnaires ci wàllum défense pale ba nag di xamle ne ci jamono ji ñu toll nag yokku jéego yi ci wàllum kaaraange gi dafay doon lu am solo wàllum emploi ak industrialisation formation yii le ponk nag bokk na ci li gën a soxal Mimi ma ngay xëy nag ci yëglekaay bii di Walf Quotidien becc nag ay bëgg-bëggam ngir nag bis bu ñu ko tabbee mu doon njiitu réew la mu ca na ma doxal ci biir yëglekaay bi moom Mimi Touré muy xam ne nag ni Amadou Ba ñàkkum populaire gi dal Macky Sall bëggul benn yoon mu dal ko jàll ci yéenekaay beneen mu di libération dal di xam ne nag ni juróom-ñeenti société yoo xam ne dañuy yëngu ci njaayu matériel médical nag daal dinañuy soobu ci ab xeex dem ca cour suprême la ñu bëgg rek mooy nag ñu daal di leeral koppar yi nga xam ne rek dañu koy tudd ci marché gré à bu toll ci 71 milliards foofee ca ministère de la santé wàllum planification familiale yéenekaay bi di les échos ne ci xayma rek jigéen ñi nga xam ne dañoo toll ci sëy te mënuñoo am borom kër nag di ko jëfandikoo toll nañ ci juróom-ñetti fukk yu toftal ñeent ci téeméer boo jël bu fekkente ni jigéen ñu koy jëfandikoo te nekk ci buumu sëy nag seenub lim tollu na ci ñeent fukk ak juróom benn ci téeméer boo jël ci ñoom te it nag boo xoolee ci ñoom fukk ak ñett ci téeméer boo jël yu jot a jël ëmb nag seeni at ci fukk ak juróom jàpp fukki at ak juróom-ñeent ca la toll Société nationale d'électricité bu Sénégal Sénélec moo leen doon may seen revue de